gan gi mi ngeek ñun euh, ci euh, bu mu jokko bi professeur Ousmane Sène njiital WARC centre de recherche ouest africain euh, professeur ñu ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu mm-hmm, am mbégte dalal la ci matinalu tey bi jéggalu nag sànq ci version française bi nga xam ne dañu ko raté ci suñu auditeurs yi alors ñu doore professeur itam di la ndokkeel ci sargal bi ñu la defal ca États-Unis jox la prix Visionary Leaders alors euh, ñu waxtaanee euh, surtout euh, sommet di ndaje mu yaatu mi amoon diggante États-Unis ak euh, Afrique jeex nag ci ay yëgle yu bari bokk na ci taxawaay bu États-Unis ne daf ko nar am ci Afrique jël lu tolloog deux virgule cinq milliards de dollars ngir xeex ñàkk karange gi ci wàllu ñam muy insécurité alimentaire ak yeneen i mbir yoo xam ne itam jagleel nañu ko gën a dooleel démocratie ci institution yi surtout ci wàllu démocratie yow nga euh, euh, lool euh, maîtriser États-Unis ak ni muy doxalee surtout lan la ñu mun a jàpp si taxawaay bu bees bi bu dee mun nañ ko waxee noonu bu bu Joe Biden ak gouvernement mu am ci Afrique. waaw taxawaay bu bees bi benn dafa ñaar dafa am yoo xam ne yi aussi pousse nañ ko mu doon loo xam ne ni pour urgence la pour États-Unis hmm. dafa jot parce que depuis suñ pays ba léegi États-Unis mi ngi képp koo xam ne ki yaa ngi ci dëkk bi xam nga lu ñuy wax USAID mm. euh, ñëpp xam nañ ko ci développement am na yeneen activités yoo xam ne xëy na nit ñi xamuñu ko mais ñu ngi koy doxal ci maanaa éducation surtout enseignement supérieur mais xam ngeen ne aussi Barack Obama balaa muy dem euh, samp na benn programme boo xam ne bi pour tàggat ndaw yi nga xam ne ëllëg ki fi ñoom ñooy doxal muy yali mu ngi fii Sénégal mu ngi fii euh, gox yi nekk fii yëpp Afrique de l'Ouest mais yeneen euh, euh, partie Afrique yi aussi am nañ seen yéen waaye mais loolu dafa mel ni doyul parce que Amérique gisuñu ko lool ci domaine nu bi. Hmm. domaine commerce bi xëy na AGOA mu ngi fi am nañu ci profité waaye barewuñu. Hmm. ce qui fait que donc le fait que Afrique de plus en plus ñu fiy gis ñeneen. parce que avant kenn lañ fi doon gis muy France. Mhm. France doon partenaire u États-Unis mhm. ñu koy wax le vrai donc américain yi France a nga fa donc xëy na xee xëccoo. Mhm. mais xëy na sax du loolu c'est-à-dire que bon xëy na Afrique wala gisuñu woon li nga xam ne moo nekk Afrique moo tax. mais de plus en plus ñu ngi gis ne ñeneen ñoo xam ne ñi passé nañ France lu mel ni. Euh, Euh, Turquie mhm. waaye surtout lu mel ni Chine mhm. mu ngi fii te de plus en plus mu ngi fii sur le plan économique mhm. ak sur le plan industriel surtout infrastructure yeeg donc loolu def nañ euh, xëy na war nañ gëstu Afrique pour renforcer seen pour renforcer sécurité commerciale pour aussi profiter ci nga xam noo ngi génn Afrique parce que de plus en plus nee nañu Afrique li fi nekk koom-koom. kenn hmm. wàll gi sax jëf jëriñoowuñ ko pour le moment. Hmm. donc su fekkee ne yaa ngi xool ëllëg c'est-à-dire futur. Hmm. Afrique war nga fu mën a gestu. je crois que yooyu ñoo tax euh, ñu jël gën a redynamiser gën a renforcer seen euh, activité ak Afrique. te ki nga xam ne mooy représentant spécial Biden fii ci Afrique ñu koy wax Carson. ancien ambassadeur la mais xam ne Afrique bu baax. ak ñi nga xam ne tàbb nañ leen aussi ci gouvernement. Euh, euh, Biden ki nga xam ne mooy représenté États-Unis euh, fale fale ci Nations Unies ñoom ñëpp soo leen xoolee nga xam ne mun nga ràññee xarkanaamu Afrique xëy na loolu dina tax ñu gën a propulser ñu gën a renforcer coopération beeg Afrique mais nag am na loo xam ne lii boo ko lalu il faut ñu dugal ci xelu américain yi ne Afrique du doon Afrique bi ñu doon wax ne feebar a ngi ci Afrique du doon Afrique boo xam ne bii ndóol a ngi fi ndóol boo xam ne bii amul sécurité yooyu yëpp suñ ko ëmbee xam ne Afrique jëmukaay la. Mhm. ñu jéem a jë ñëw jëflanteeg ñun parce que jëflante moom da nga am ma am su ma am suma wàll nga am sa wàll. Mhm. nañ ko teg foofu. Euh, beneen bi aussi mooy euh, comme le président Sall waxee leen ko mais insécurité ak affaire djihadisme yooyu mais kooku euh, sécurité boo xam ne bii la problème de sécurité boo xam ne bii la ñëpp la lal. Mhm. jihadiste ku ci dëkk rek xam ne euh, kaaraange lañ ci àddina bi ñu koy nasaxal donc hmm. suñ ko liiree noonu xoolaat Afrique ci notre bassin à partir de ce moment peut-être que bon investissement yi dina gën a tànn et à partir de ñëpp ñoo ciy jëriñoo ci li ma yaakaar hmm. man daal loolu laa liiree affaire bi te yaakaar ne aussi leaderu Afrique yi dëkk-dëkk wax nañ wax joo xam ne ñi wax ju leer la hmm. wax ju leer la loo xam ne ni képp koo xam ne kii Euh, euh, nekkoon nga fa xam ne Afrique fii la bëgg a jëm mhm. te je crois que sentir naa ci africains yi ak seen mhm. détermination boo xam ne bii xëy na le reste du monde war nañ ko jàngat ne Afrique dafa am su ma a dem. Mhm. takku na ci taxaw na ci te il faut ñu ànd ak moom. man mhm. loolu laa liiree discours yi nga xam ne jot nañ am foofu. Mhm. mu jógee ci Biden wala mu jógee ci président de l'Union africaine président du Sénégal. Macky ñoo xam ne ñu ngi fa doon wax. bien sûr alors euh, ci wàllu sécurité euh, ñu ngi euh, gis xëy na ay kàddu yuy jóg jëm ci force Wagner di gën a teew ci Afrique États-Unis ñaawlu ko ndax jàpp ne bokkul ci liy yokk kaaraange. est-ce que mënuñu euh, euh, xaar foofu prolongement combat États-Unis Russie fii ci Afrique waaw mais c'est-à-dire que combat combat du indi loo xam ne ci dina jëriñ àddina euh, si mm. te af bu leen fàtte bu leen fàtte histoire u États-Unis ñuy wax interventionnisme mm. c'est-à-dire dañuy tuddee États-Unis les gendarmes du monde mm-hmm. fu am xeex ñu dem intervenir fa. Mhm. yóbbu ay soldats pour xëy na mhm. waaw pour xëy na seen ñoo xam ne ñii seen xarit lañ wala pour défendre seen intérêt. Mhm. lan la jur ah, américain yu xale yi américain ci àddina si te seen parents yi ak Amérique surtout liñ bañ gis mooy ay américain yoo xam ne ñu ngi dee ci dëkk yoo xam ne du seen dëkk kooku moom il faut que Amérique. jàllale ko fale hmm. guerre technologique nga xam ne am nañ même ay avion yoo xam ne da koy dawal te nit nekku ci loolu aussi alal ju guerre bu bari la xam ne bii day yàqu su fekkee ne mun nañ def lépp ci jàmm je ko que moo gën xam naa ko yoo xam nga ko bi tamit euh, réeré wuñ ko mbir Wagner li tax mu nekk fi. Hmm. mais Wagner li tax mu nekk fi c'est que peut-être que am na dirigeant yoo xam ne soxla woon nañ ñoo xam ne yooyu ñoo accompagner leen. Hmm. je ne sais pas ndax am nañ dëgg wala amuñ dëgg du ma foofu. Hmm. mais loolu yëpp soxla boo xam ne bii nekk na ci dëkk Afrique moo tax ñu ñëw. su fekkoon ne am na dëkk yooyu boo xam ne bi toll nañ fa ci kaaraange. kon boo euh, xëy na duñ soxla ñeneen ñëw te li ma bañ a dégg loolu moom wax ko de manière mooy ñuy wax ne woy France ne woon na fii États-Unis xaw na fi nekk pourquoi pas les Russes non. Mm. Afrique du doonul doonul continent boo xam ne bi kum neex rek ñëw samp sa dënd. Hmm. kooku nañ ko bañ. Hmm. Euh, euh, état France bu mën a euh, perte dooleem wala États-Unis bañ fi nekk ba pare ñu ne ne Russes yi nañ ñëw wala Chinois yi nañ ñëw remplacer leen déedéet suñu dëkk yi dañu war a bañ loolu. mën nañ ñëw pour que ñu def coopération liggéey ensemble mais ñëw nag pour taxaw bi ba pare ne fii ñoo ko moom kooku moom Afrique africain yi rek ñoo ko moom hmm. keneen mënu ko moom loolu aussi na leer ci mbiru ci ci xelu nit ñi def ci àddina li mais mu leer aussi ci xelu africain yi nañ bàyyi di wax ne way ñii dem nañ ñele nañ ñëw nangam nangam nangam nangam hmm. loolu dafa mel ni ko dans ces conditions ñun boobu njaam gi bëgguñ ko dagg ba léegi hmm. koo xam ne kii da ngay ñëw na fekk ne suñ intérêt la te doo jaxal suñ dëkk su fekkee loolu la nga xam ne ñuy coopération rek nga indi sa marchandise ñun ñu indi suñu marchandise wala nga tabax ñu fay la nga tabax fay genn wàll ñu fay genn wàll gi loolu d' accord waaye daal ñëw ba pare pour que Afrique rek comme neex rek yow teg teg sa kooku nañ ko bañ ñun africains yi balaa ko keneen di xalaat. Hmm. donc euh, c'est vrai. Hmm. am na toujours rivalité di diggante. Hmm, Russie ak États-Unis mais je crois que pour mu pousser leen à une confrontation directe. kooku dina difficile lool lool lool lool. yàlla na yàlla def bu ñu ci loolu. amiin alors euh, lan la Joe Biden mun a gagné si li mu porté tey euh, combat wu Afrique notamment euh, bu président Macky Sall mi bëgg Afrique ñu jox ko cëram mu mun a teew si lu mel ni conseil de sécurité de l'ONU de manière permanente ak G20 ñaari mbir yoo xam ne tey Joe taxaw na si lan lay gagné en retour. waaw ben loolu dafa dafa dafa dafa dafa philosophie politique. démocratie. Hmm. Euh, su fi Bill Clinton newoon. Hmm. ki nga défendre lu mel noonu. su fekkoon ne euh, kii Obama mu gis bi dégg. dina défendre lu mel noonu que Joe Biden défendre ko bettuñu. Hmm. parce que nag Nations Unies conseil de sécurité bañ koy créer. mooy biñ génnee ci deuxième guerre mondiale. ñi nga xam ne ñoo taxawaan am doole gagné guerre bi mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekk waaye soo ko seetloo ba seetlu. ñi nga xam ne ñoo gagné woon guerre bi temps yooyu ba pare nekk fa ba léegi mhm. ñoom seen poids dans le monde mu ngi fi ba léegi mhm. mais soo jëlee Afrique boole ko yëpp yëpp yëpp yëpp ñëpp ànd mhm. mais ñooñu pays yooyu mais amuñ amuñ amuñ amuñ doole par rapport à l'Afrique lu tax Angleterre Grande-Bretagne war fa nekk te Afrique newu fa lu tax France war fa nekk te Afrique newu fa et cetera et cetera am na dëkk yoo xam ne yooyu seen présence soo ko comparé ak Afrique Afrique moo leen ëpp doole foofu hmm. moo leen ëpp population en plus de ça guerre yi yi ci gën a bëri Afrique la nekk hmm. luy ndey loolu yow nga am ay problème de sécurité hmm. man ma nekk fële ko organiser sama groupe koo xam ne ci ñooy saytu sécurité ci àddina des parti yow bokkuloo ci kooku combat boobu dañ ko war a porter te Joe Biden nee na effectivement dina défendre Afrique pour que Afrique teewee fa loolu déjà benn point bu important boo xam ne bii Afrique war na ko mën a mais am na leneen lu ñuy loo xam ne duñ ko sóoraale. Mm. c'est Amérique soo ko waxee du du dëkku nit bu weex kese. Mm-hmm. nit yu ñuul ña mm-hmm. am nañ fa lool takku takku takku. Mm-hmm. bare nañ fa te dañ leen ay dégg tous les jours. ñooñu aussi fi nga xam ne foofa la seen maamataar yi mais il faut ñu wormaal ko. yooyu yëpp élément yu bëri yoo xam ne soo ko boolee dinañ justifier que Afrique demande à ce que Suisse mi nga xam ne foofu la war a toog mu toog fa mais fa aussi dëkk bu mel ni États-Unis war a dooleel Afrique pour que mu mu mu toog fa su fekkee ne Joe Biden dafa nar ne dafay tegaat ne demam pour amaat un deuxième mandat mm. loolu défense bi nga xam ne mu ngi koy défense Afrique la mm-hmm. lu am solo la ci population noire yi mm. euh, mooy africain américain yi mm. évidemment tant que réglé wul aussi euh, problème africain américain ci biir États-Unis mm-hmm, même kon à part de souvent xëy na am lu bare mais mm. loolu su ko defee pare boo lajee pare mbubu Afrique mu sol ko mm. kon Afrique dina am solo chance su am beneen mandat alors ñu jeexal euh, très rapidement professeur ak xayma euh, coppite yoo xam ni seetlu nga ko bi Joe Biden ñëwee ba léegi par rapport ak euh, ki ko fi jiitu wala ki mu daan muy Donald Trump moom bi mu ñëwee ku nekk xam na ni am na woon ay jafe-jafe ci rapport yi ak ak réew Afrique yan changement nga gis ne Joe Biden indi na ko ay ay peut-être euh, décision yu am solo yu mu jël Joe Biden dafa jël ligne boo xam ne bii moo yàgga doon ligne États-Unis par rapport a Afrique hmm. ba pare nag am leneen loo xam lii nar na ko ci yokk parce que nag su ngeen ko fàttale ko bi mu jëlee euh, léegi yi hmm. dafa ne fàttewuma Afrique am na yoo xam ne maa ngi koy bébét ci Afrique. Hmm. dafa mel ni li nga xam ne wax na ko yaa a à peu près un an et demi wala deux ans. Hmm. mu ngi commencé di ci liggéey. Hmm. mais aussi am na discours boo xam ne bi ni ñu ko doon dégg ci nga xam ne moom la remplacé. dootuñ ko déggate en tout cas ci Joe Biden ak nga xam ne ñoo àndal ak moom. parce que discours boo xam ne bi amuloon respect. discours boo xam ne bi amuloon worma mhm. discours boo xam ne bi euh, boo yara defu mu ngi ci mhm. Afrique ñu neexuñu woon ba nga xam ne ñu bëri ci ñun dañ doon wax ne Amérique bi xamuñu ko mhm. attention waxuñ ne bi amul de déedéet parce que Donald Trump ci boppam doomu Amérique la dañ ne Amérique bi faraju fara faraju di o gis man gis ma bopp bi mu waxee yooyu ma toog ma ne mais man bés bu nekk ak bu nekk ba dem fa ñaar wala ñett. Mhm. mais lii effectivement li ma ko dégg bariwul wala mosuma ko dégg. Mhm. mais nag boobu dafa fekk ne mosuma dem ci américain yoo xam ne yooyu yi nga xam ne ñoom dañuy xalaatee comme Donald Trump te ñooñu am na foo xam ne fii foofa lañ dëkkee. Mhm. faralu ma du dem foofu ñu bari ci ñun duñ dem foofu. donc mosuñu ko dégg wala luñ ko dégg bariwul. mais nag Amérique boobu. Euh, discours Joe Biden ak njëfalu Joe Biden il faut mun na saxal ko aussi. loolu la ñaan. pour que Amérique bi nga xam ne moom la ñu tàmm di gis Amérique bi nga xam ne moom la ñu tàmm di jëf leen hmm. Amérique boobu dellu mais dellu si ak doole hmm. ne fulaal na Afrique am naa fa intérêt hmm. il faut que dans ces conditions ma fulaal suma relation ak Afrique d'autant plus que genn wàll suma population bi Afrique lañ fekkee baax te Afrique aussi au fond soo ko seetee yàgg nañ ko fulaal ci États-Unis sans ñu gis xam nga fi may waxee mooy fi nga xam ne moom laa gën a xam. Mm-hmm. mooy coopération universitaire. Mm-hmm. Euh, université yi nga xam ne ñoo gën a mag ci Amérique. Mm-hmm. soo fa demee am na benn centre boo xam ne bii ñu ngi ko tuddee African Studies Association. centre boo xam ne bii mu ngi saytu. li nga xam ne moo nekk ci Afrique université yi ko am àddina si barewuñu. donc Afrique am na foo xam ne États-Unis yàgg na fa di nekk. te aussi Afrique dina fay ci lu bëri loo xam ne li ci àddina si États-Unis moo koy def mm-hmm. mais soo demee ci sport ñi nga xam ne ñoo gën a fël ñan la soo demee ci yeneen yi li ñuy wax entertainment ay affaire musique a yu kenn xamul yoo xam ne ay milliards lay génne mm-hmm. ñen ñoo fa a il faut aussi que feneen fi nga xam ne am na investissement pour que industrie pour que l'économie bi dox mhm. euh, américain yi nga xam ne der bu ñuul lañ nekk foofu war a gëm Afrique ñëw investir bi mais tubaab yi aussi ñëw investir parce que fii kenn du fi investir pare le lendemain ñooy la kaay ma rey la mhm. au contraire da ngay investir ànd ak nit ci def yoo xam ne yi kontaan nañ ci yow mhm. ngeen mun a doxal ni ko ñeneen dëkk yi di defee depuis plus de cent te dara fekku leen hmm. ci lu ci lu ci lu ñaaw a fii ci Afrique mais état bi kay war nañ xalaat ne loolu aussi ñoom mën nañ ko def hmm. te dara lu ñaaw du leen fi fekk hmm. Asie gënte sur Afrique même Europe am na foo xam ne fii gënte sur Afrique pourquoi rek ñu bëgg a jaar jël Afrique rek tuumaal ko ci loo xam ne lii dafa ñaaw ba nga xam ne ken ñemewu ko ba nga xam ne sax nit ci seen xel nit ku ñuul dafa am na koy xoolee loolu il faut ñu liggéey ci pour que mu dëñ pour que Afrique doon continent boo xam ne bi ñëpp war nañ fi ñëw d'autant plus que Teranga ñu ngi koy euh, euh, tàggatee Sénégal mais dëkk yu bari Afrique mm. Teranga lañ xam euh, nga ñëw ñu jox la li nga xam ne moo gën a baax ci ñun pare. Mm. jël la xarit. Uh, voilà donc loolu yëpp suñ ko boolee. Mm. xam nga li ñuy wax li doon premier ministre britannique di wax. un vent de changement. un wind of change bi nga xamee ne. dëkku Afrique yi nga xam day ñu làkk anglais ñu commencé indépendant mu mm-hmm. ne un vent de changement dina souffler ci euh, Afrique c'est-à-dire ngelawu soppite mm-hmm. dina su mu ngi souffler ci Afrique ngelawu soppite boobu na na na souffler diggante Amérique ak États-Unis ñu gis ci suñu njëriñ mm-hmm. ñoom itamit ñu gis ci seen njëriñ suñ ndoom yi am xëy l'économie bi gën a avancé mm. mais lépp ñu def ko ci loo xam ne lu leer la mm-hmm. lii mooy suma la yelleef lii mooy seen yelleef comme mm. ça ñu séddoo ko voilà loolu la jërëjëf professeur Ousmane Sène njiitalu WARC amoon nañu mbégte lool dalal la si matinalu tey bi di la gërëm bu baax a baax voilà dama jéggalu ci version française bi ma téléphone dafa amoon ay gàllankoor mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf professeur Ousmane Sène